صوتا لك العز والجليل أناني أمان بالبلاء وفي الندم وفيت شفاة الجود والفقر من إذا ما مدى كل لقد مال لي بلي بداد وسهولا فقال الباطن كريم أتيت أملاك يمدك يمدك وفي مريم بسكن مان محمدنا المهدى سعدي لمالك عليه صلاة الماء سلام من رسول الكريم الكريم المكرم عليه سلام بالظلم والغي سلمت من الله والمغرب إلا والنذير بلادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل ما من وليس بالمزيد لقد جاءكم مسلم على غير مرسل أماني بالباب عن السلم والوفي مع المصطفى فسل أماني بكامل وإني على خير كثير مع النبي نبي نبي الجمل الله زاده كما أحسن الأخلاق وبالذل والمن على من يلقى بالمصطفى النبي قلوب الورى دون مانع نويت شكرا لشكرا مخلدا على من به كل يصفي زماني فليبدو بأمن الله أباح ومالك وبالمصطفى أما عن الميم والمجيد سألت بوجه الله ربي ومالكي براقي بلا أمر دوسا وكسيد ففلاه كل كل كما لم يكن بلا حين أرى كل براءة محمد المختار بابي عليه السلام لمن جاد من على الله يثني صلاة مسلما على من به لدى الله سلم سماه وناصري لدى الله في وما رد لما بك بعد يميني المعنى فمن لبس مني دم ومن يميني على الأعداء سيف المعنى فمن لبس مني دم ومن زمام سبي الإسلام فيها فمن وكوسي في الدنيا وسلم علي لوجه الله إليه سنا لمن أماني بالباقي عن المقيم برب سكوني بعد عمي على النبي فلا تنتهي نبي ذو الفن بالنبي يصفي لي الخيرات ربي بجاه ñun taal bi taal dara gis nañ bëri moom dootul waat ñun taal dara ñun taal sëñ bi rek. wéetal ci fépp nag mu wéetal ci fépp yéeg yéegal ko kon ñu sant rek ñu sant rek sax dàkk sañ sax dàkk sañ suñu bopp ngeen jëf Tawfekh moom yéeme na lool Tawfekh rek la am na sama borom ak coobareem ak jëfam suñ bi Tawfekh borom rek la loolu tawar rek ay amee sant rek sax dàkk sant sax dàkk sant bi luñ ci def rek doyul kon nag alhamdulilah ànd ak yéen rek. Ah, jërëjëf waaw daal jekk nañu. boo ko jublu woon ñu yendoo ko. fanaane koy dañ koy def. nga ah. koy jàng ca tënc ma it ña ngay jàng. fanweeri kuréel ak ñett. Ah. waaw yoo xam ne bu ci ne bu jàngee rek sa morom topp tofal ci waxtu julli waxtu julli dong mooy doggantal bi waxtu julli rek mooy doggantal bi waaw ñu ñu itam démb wax nañ ñu nañu bu bu suba gi neuf heures ba dix heures yi demi bu guddee tamit ñu defalaat ñun ndigal loolu dinañ ko def waaye boo boo ñu ne woon bis béppit ñu def ko boo ñu ne woon guddi géppit ñu def ko alhamdulilah jërëjëf dama xamul foofu dara waaye wax ne dama koy ànd waaye waaye waaye daa ko jëm. yaa ko jiite Mbacke. li ngeen am ci xéwal de ma ko yëg ci mën ma ko wax te lan la waaye xam naa ko nag.